tali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu collectif ñoo lànk tey ji nag ci àjuma ji dinañu amal manifestation ca place de l'obélisque ñoom nag seen sàkkuteef daal mooy njëgu courant gi nga xam ne dañu ko daal di yokk ñu daal di ciy deltu ginnaaw ak Guy Marius Sagna mi nga xam ne dañu ko daal di jàpp ñu daal di kay bàyyi yéenekaay gi di Sud Quotidien mu ñu xamal lan ñu bile yoon nag préfet bu Ndakaaru daan na leen di may ab bi mu ñu xamal lan ñu moom libération tey ji nag dina nekk àjuma joo xamante ni soo mooy tuulee dina tàng tàng jër yéen kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal naan ñu en tout cas li ambades ñoo lànk jamono ji nag seenu xeex dañu koo gën a taral bu weesoo ci ndakaaru Thiès Kaolack ak Kolda Kaffrine ba Diourbel ñoom tey jii dinañu amal ay manifestation ba tey mboo may tuulee tamit tey bi dana xumbute dagan ndax nag front de résistance nationale ak waa CRD yoon askan wi ñoom ñëpp daal tey jii nee nañu danañu gunge collectif ñoo lànk ci manifestation bi nga xam ne ko amal ci place de l'Obélisque nag ci li nga xam ne mooy rentrée des cours et tribunaux la ñu ko doon amal ci teewaayu njiitu réew mi di président Macky Sall la nga xam ne moom la ñu fa ëpp lu ñu fa waxtaane mooy lu jëm ci mbirum terrorisme njiitu réew mi di président Macky Sall la moo xam ne ni ki démb ca nag rentrée des cours na lu jëm ci mbirum terrorisme loolee ci boppam kenn waru cee négocier rek wala nga ci layaam layaama la yéen a kaay gii di Vox Populi mu ñu xamal nañu en tout cas li am ba des mooy njiitu réew mi di président ni moom la yëkkati maanaam nag fas yéene naa ak ñi nga xam xam ne ñooy terroriste yi maanaam nag négocier wul ak ñoom lenn daal Macky Sall ni ki démb daan na leen di song journal bi di réew mi ko dëjee mu ñu xamal naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall jamono ji daan nay taxaw tem ngir nag guerre ak ñi nga xam ne maanaam ñooy terroriste yi njiitu réew mi di président Macky Sall di sàkku nag ñi nga xam ne ñooy kilifa dinay taraxe yi ñu daal ci dugal seen loxo ba pare di moytuloo askan wi ci lu jëm nag ci mbirum réseaux sociaux ndax nag ñi nga xam ne ñooy terroriste yi fa la ñuy jaar di këf ñi nga xam ne ñooy ndaw yi moom Macky Sall ci journal bi di enquête la mu xam le nag nee na dina amal a loi boo xam ne dina jëm ci sécurité intérieure du Badio Camara mi nga xam ne moo jiite Cour suprême la xam le nag nee na terroriste yi xeex ak ñoom daal lu jafe la loola Sud Quotidien njiitu réew mi di président Macky Sall la mu xam le nee na cinq cent millions jamono ji yemb na ngir nag ñu daal di koy dugal ci école des avocats ni ki démb la ko xam le ci rentrée des cours et tribunaux ci biir yéene kaay gi de la turbine mu ñuy ñu rentrée des ñu bari doon nañu xaar nag ñu daal di wax ci ay réforme jëmale ko ci CREI nga xamante ni nag ay nit rek la ciblé woon waaye nag ni ki démb daal këri yi kenn tudd ko ci nag boobu leen dajee journal bi mu ñu xamal ñu en tout cas li am ba des mooy njiitu réew mi di président Macky Sall ni wax ne chaise bu yees boo xam ne dina ka tabaxal ñi nga xam ne ñooy waa Cour suprême journal bi nag la mu gis mooy Macky Sall ci boppam jamono jii dafay provoqué ñi nga xamante ni ñooy askan wi ndax askan woo xamante ni maanaam dañoo sonn ba maara day taali ñu ëpp ci askan wi lekku ñu naanu ñu ngir ay jafe ngir dëkk boo xamante ni dafa metti ba maara day taali askan woo xam ne maanaam lekk bu ñu feebaree du ñu faju xoolal ñi nga xamante ni ñoo amee jàngoroy roñoo ak kit yi nga xamante ni maanaam moo manqué ci dëkk bi Macky Sall taxaw fi di wax maanaam chaise bu yees ngir cour suprême loole nag journal bii de la témoigné moom na mu ko gisee mooy Macky Sall farata ci boppam la xamul te nag dafay provoqué ñi nga xam ne ñooy askanu Sénégal yéen kaay gii di réew mi quotidien mu xëy di dikkal ñu ci li nga xam ne mooy bureau opérationnel bi jëm ci mbirum plan Sénégal émergent niki démb ñoom nag amaloon nañ si am ndaje ngir na xool jéego yi nga xamante ni dañu bi nag la mu nemmeeku nee na ñi nga xam ne ñoom lañ dénk plan Sénégal émergent def nañu ay jéego waaye nag bëri na ay manquement yoo xamante ni maanaam daal dina cay am grand place yéene kaay daal di xëy dikk ci mbirum Fatoumata Makhtar Ndiaye mi nga xam ne dañu ko rayoon ci atum 2016 ki nga xam ne mooy Samba Sow ne moo def lu ni mela moom nag ginnaaw bi ñu ko àttee daat nay tudd ay tur yu baree ku ci mel ni député Awaña ba ñi nga xam ne ñooy waa Forum justiciable ca kero ñëpp nag maanaam dañu leen a war a topp déglu leen ca wàll woowa ba tey ci biir yéene kaay gii di ko mi quotidien mu ñu xamalaan ñu sàmba booy defandi nañ musiba ma bokkumba ci diwaanu Jurbel ay boutique la ñu fa daal di songu jël fa lu toll ci ñeent ci ay millions a ka kaay gii di ko mu ñu xamalaan ñu bërki dee moo njaay rek la ñuy fi voté ab loi boo xamante ni maanaam dafay taral daan ci ñi nga xamante ni ñooy yàkkataan ak di violer xale yu jigéen yi waaye nag daal mbir mi ba léegi ni ma ngi am ci réew mi ndax nag diwaanu Kédougou benn xale bu jigéen boo xam ne maanaam ñetti at rek la am dañoo yegg si kawam daal di koy caxte-caxte yéen a kaay gii sunu làmb xëy nag dikkal ñu ci combat Balla Gaye 2 Boy ñaa 2 bi nga xamante ni doon nañu ko laam-laamee journal bi mu ñu xamal nañu nag Balla Gaye 2 daan na say génn ba set sa wecci la ko waral nag ñu bari dañoo tuumal ne baayu Boy Niang moo waral lu ni mel ndax nag moom mooy yëkkati ay kàddu yoo xamante ni kàddu yu ñàkk war mala la teg ko ci ki nga xam ne maanaam mooy Sa Thiès ba pare ni muy communiqué daal du communication bu baax loole nag ki nga xam ne mooy manager booy Niang 2 di Burkhane Wade moom nag moo ko daal di xamle journal bi di sunu lamb ba tey mu daal di ci combat Modou Lo Ama Baldé bi nga xam ne moom la ñu lam-laamee jamono ji te dara leeragu ci Balla Gaye jamono ji nag moom commencé na di kookali Modou Lo ci lu ni mel ba booy moom nee nag combat boobu dina ci taq rip ci ginnaaw Ama Baldé ci ginnaaw